ak njéggalam gu matale gi mu mel ni nag dañuy dellu siwaat ci sunu jataayal yóbbulum ndaw ñi muy jataayal xam-xam waaye di jataayal fàttali konte comme niñ ko baaxoo di defee ci ay ayu bis yu bari sunu bàyyee xel nag sunu bind bi weesu ci aljawharun nafis ñu ngi doon jàngale julli leer gi nekk ci biir julli nim màggee ak julli ci boppam nim gënee màgg ci jaamu yàlla yi moo tax kat sunu bindu tey ñu ngi tàbbi ci jàngale jullik aji feebar ji moo tax mu ne fas lii ab dog la zukira gog tudd na fii ci moom salaatul maridi jullik aji feebar min xiyaamin ci taxawaay wa juluus ak toogaay wa xukmiha bokk na ci ay atem wa xukmihima bokk na ci ay atem ñoom ñaar wa ma ak la nga xam te ni yataxallaxu dana aju bihima ca ñoom ñaar waaye jibu dana war xala kulli mukallafin ci bépp mukallaf ay yataxallama mu xam masaila haadal baabi masalay bii bunt is ngir laysa axadun déet kenn maxsuuman muy muy kuñu musal minal mariiri ci feebar mu ne kon sunu bintib tey day jàngale jullik aji feebar ji ki nga xam te dafa feebar nan lay jullee ak yan ak yan mooy ay atteem ak li ci aju lépp waaye moom sëriñ bi mu wax ne war na ci bépp mu kallaf mu xam masalaay bii bunt nga xam ne dina xam julli ku feebar nan lay julle ba mu jeex ndax kat yow doomu aadama bi yaa ngi dund ci biir suuf nekk ci kaw suuf di dund mu leer naa ne feebar mënta ñàkk ci sa jëmm te jullikat du wàcc nit ki feek mu ngi dund sagam nag heure booy dund donte da ngaa feebar julli du la wàcc daa war ngay julli kon war ngaa fexe xam nag nan lañuy jullee ci ginnaaw boo feebaree moo tax sëriñ bi lii nag moom lu war la ci doomu aadama bi mu xam ki nga xam dafa feebar yan anam la mën a jullee ndax yàlla waxut kenn ne dangay dund ci àdduna te doo feebar mukk kon nag sa da dangay feebar fexee la xam boo feebaree nan ngay jullee ndax julli boo feebaree yëpp dalay wax mu ne walil faridati bokk na ci farataay julli bokk na ci liñ farataal ci julli minal axwaali ci ay mbir maa yoo xam te ni tu xaddu def na leen lim sabaxatan ñuy juróom ñaar la daa ka nga xam te ni xalimaa xameef na ko aw jabaa waral nañu alfuqaha way dégg fiq ya ada ana sunub jooxe alfarda farata ya xale ha ca juróom ñaar yooyee wa kaw naxaa ak ak nekkam tarattuban di ak toftale arbaxatun ñeent ya min xaa ca moom alal ijaabi ci ak waral salaasatun ñett min xaa bokk na ca ñoom alasteex baabi ca kaw yuñ sopp amal lati ndaal ya nga xamte ni alal wujubi nekk na ci ak waral falxiyaam mooy taxawaay dunastidaadin ci lu dul wéeru fa xiyaam bokk na ci taxawaay ba tey aydan ba tey bihi ci lu dul ci ak ci lu dul wéeru ci ak wéeru bihi ci ak wéeru summal julus topp toogaay duunahu ci lu dul wéeru summal juluus topp toogaay ba bihi ci wéeru kama bi nassin naka ma ko yaxale say xinaa sunu sëriñ ar rais kadi kilifa ga xad aw jabu waral nañu tartibu toftale zil ahwaal ci mbir alal mukallafiina ci mukallaf yi ci bépp mukallaf bi tawaali ci méngale mu nekkat bokk na ci julli aji feebar yi mooy juróom ñaari mbir yoo xamante nii dafa war juróom ñaari mbir yoo nag dañoo indi ñeent yoo xam ne dañ koo génne ci juróom ñaari muy ñeent yoo xam dafa war ñu toftale ko nga xam ne benn boo def teg ci ba ci des ba ñeent jeex ñu dindiwaat ci ñett yoo xamante ni dañ koo sopp nga xam ne sopp nañ nga defee ko toftale ko waaye tamit boo ko toftale wut yàquwut ñeent yi njëkk nag muy ñeent yi war nga xam ne képp kuy julli fekk feebar dikkal la danga war a toftale ñett yi ba ca njëkk mooy bu dee da ngay julli te nga nekk koo xam te ni mën ngaa taxaw jonn julli kon danga war a taxaw julli bu dee mënoo taxaw julli nga taxaw wéeru julli bu dee mënoo taxaw te wéeru julli nga toog julli boo mënul toog julli nga toog te wéeru julli yooyu mooy ñeent yi yooyu nag benn boo ci bàyyi nga xam ne mën ngaa taxaw julli nga dem taxaw wéeru julli boobaa day yàqu nga mën a toog jonn te doo wéeru julli nga bëgg lu yomb dem toog wéeru di julli boobaa day yàqu kon faw dangay ngay toftale ñeent yooyu benn boo mënut nga teg ca ba ca des ba mu jeex mu ne bu dee ñett yi nga xam dañ koo sopp mu ne wa man yu salli ku julli bi xaalatin ci ay mbir waxadar tamu àttan maa la nga xam te ni fawxaha nekk na ci kawam fal mu ate ba butlaan yàqu na zahar gog feeñ na am masalaasatun daal ñett allati ya nga xam ni bokk na ci ñoom juróom-ñaar yooyee xaddunu di baa gog soppeef na ko tartiibu naa mooy sunu toftale laha ñeel ko alaama ca la nga xam ni untuxi baa tànneef na ko salaatu man mooy julik ka nga xam te ni wana lottu na ala jan bi layman ci wetu nday jooram fal ay sari ak càmmoñ ba wilaa ci toftale an hazihi ci walif yii summa ala zahari topp ginnaaw ga fa in xaalafa ndem wuute na fi haasihi salaasati ci yi ñett fa xu fii xenceef na jaaisan muy aji dagan mu nekkat kat ñett ya nga xam te ni dañoo wax na ñett yi dañ koo sopp kii nga ñu toftale ko ñett yooyu nag mooy ban mooy ki nga xam te ni dafa war a julli waaye lottu na ci julli mënta taxaw mënta toog lim man mooy tëdd di julli kon buy tëdd di julli li muy njëkk a def mooy mu tëddee wetu ndeyjooram jublu kanamam penku ba daal di bu dee mu tëddee wetu ndeyjoor mu walbatiku wetu càmmoñ tëddee wetu càmmoñ ga te jublu penku julli bu dee mënta tëddee wetu càmmoñ kon mu tëdd ca ginnaaw ba maanaam jël tànkam féetale ko ci penku bi kanamam jàkkaarloo penku bi mu julli kon ñett yooyu mooy ñett yi nga xam dañ koo sopp waaye nag nangay bàyyi xel ne sopp gi mooy nga toxtale ko kato ndeyjoor bu tëlee nga indi kato càmmoñ bu tëlee nga indi jaaxaan ñett yooyu la wax ne sopp nañ nga toxtale ko buñ ne sopp nañ nga toftale ko nag bu fekkee dañ laa waxoon wetu ndeyjoor ngay jiital nga bàyyi fa wetu ndeyjoor dem tëddee wetu càmmoñ boobaa tamit luñ soppoon la rekk waaye du yàq dara ci julli gi bu dee da mënoon tamit tëddee wetu ndeyjoor nga bàyyi ko jaaxaan bu boobaa du yàq dara ci julli gi ndax lu ñu soppoon rek la xanaa kay yii lañu wax ne mën nga koo def te fekk du yàq julli gi ba tey nga mënoon a taxaw wéeru nga xam ne dangaa war a julli taxaw waaye mënoo taxaw dangaa war a wéeru nga bàyyi wéeru ko dem toog toog toog boo xam te nii doo wéeru boobaa boo tëbee yooyu boobaa teewul julli gi dina baax te loolu jot naa bàyyi xel kon yooyu mooy julli yi nga xam te nii mooy jullik aji tawat ci yenn yi nga xamante ni mën na koo man ak yi nga xamante ni bu ko mënut nan lay def muy juróom-ñaar yooyu ñeent yooyu mooy toftaloo ñett yi mooy dañ koo sopp benn boo ci wuute nag nga xam ne mën nga bii dem def bee ci ñeent yooyu boobaa julli gi day yàqu bu dee ci ñett yi ñu sopp nag boo ci man bàyyi ko dem def beneen boobaa du yàqu julli gi boobaa teewu tamit julli gi dina baax kon bunt la boo xam te nii niñ ko waxee woon ci tàmbalimaa ba bunt bu jara bàyyi xel la nit ki war naa fagaru rawatina ab jullit ba xam lépp lu muy jaamoo yàlla nga xam ne bu ko dara dikkalee rek moo xam ak wér la moo xam feebar la dina xam ne kat nii la wala sàmmee digganteem ak boromam ci li muy jaamu yàlla kon dañuy yemale fii suñu bindu tey di jox dig daje suñu jotaay bii di ñëw ñu yeggale bunt bi li ci bariwut ñu yeggale lenn ci bunt bi ba tey ci jullik aji feebar ji suñ ko yeggalee ci jotaay bii di ñëw incha allah tàbbi ci geneen julli mooy julli gi nga xam ne dañ koy julli ñu raaw la ci biir julli gi nan ko koy fayee mu yu am solo yooyu jar a xel ndax julli dafa kawe lool te lu mënta ñàkk ci ab juddit la kon ñu ngi ñaan suñu boom may ñu dégg ak topp suñu boom sellal suñuy xol nekk xol yu sax ci lislaam suñu boom jéggal ñu suñuy bàkkaar may ñu gudd fan ak wér ñu nuyu bépp mbokk juddit rek boo xam te ni yaa ngi teewlu jataay bi ñu lay nuyu la jox sa wàccuwaay ñu nekk ci biir réew mi ak ña nekk ca bitim réew ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne ñu ngi leen jox di dajee suñu jotaay bi di ñëw ñu yeggale ci wàllu julli julli aju feebar insha allahu rabbi in uridu ila al islaaha mastataxt wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu be